ñu ngi leen nuyu di leen jaar yéen ñi war a suivre yéen ñi suivre Sen Sport ñu war a ñëw yéen ci benn vidéo jox leen onze bi nga xam ne jàpp nañu onze probable la ñun ak Cameroun bi ñu ko tegee war nañu mën a dóor Cameroun facilement daañu tey li nga xam ne mooy fausse position de ballon ballon bi mais laataa yi ñëw ci loolu dañuy wax yéen ñi gan ci bile page ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne mooy cloche notification bi pour ngeen am seen vidéo à temps fii ci Remo Sport sama gars yi bu ko defee noonu ñu dugg directement ci onze bi ñu tegal onze bi ñu tegal kat 3 pour pourquoi Cameroun c'est un équipe boo xam ne toujours euh, day faral di fu euh, bokk dañuy forum mooy li nga xamante ne bii na mooy euh, coupé ay pied maanaam des fois dangay xaw a tànc di centre di mbëkk wala damay corner di ko dugg wala ay coup franc léegi boo footballee 4 3 3 toujours xam bi da nga fexe ba li ñu footballoon ñun ak Équateur dañoo xaw a niroo profil ñu Équateur nga football kaa Cameroun ndax boo dee dugg sa zone ñaari meeteer yi ñu xëcc benn latéral bi seere ci koñ bi nga acc accal ko dóor ko ay tànk ba mu génn sa zone nga bàyyi ko mu yor bal bi bu ko defee bu jeexal doo xam ne ma def ci bal bi yow boo téye bal bi am nga joueur am capacité yu man football nga dox ci ko comme jëm kaa dugal su ko dee boo ko dugalee maximum yàqu mu génn jëm forte nga xool noo ko dogalee 4 3 3 bi nag góol bi Edouard Mendy la kooku amuñu chance défenseur bi Ismaïla Jakobs Sabaly Alioune doon na wax doon na wax mi ngi ci forme ko yaa na mas tey war naa maa départ ndax dafa gaaw da yóbbal bi ci no gaawee Koulibaly ak Moussa Ndiakhaté pourquoi pas ñu defal Lamine Camara lañ lay defal ak ki nga xam ne mooy Pathé Ciss ak Pape Matar unité doon wax dana ci forme nga teg leen pourquoi pas pourquoi euh, partie de remise bi gaaw lay def bali gaaw dem Lamine Camara day dóor Pape Matar day dóor te mën nañoo dribble bu ko defee meilleur terrain ba moom en cent pour cent Sadio Mané ki nga xam ne mooy Iliman Ndiaye ngay indi ak Nicolas Jackson pourquoi Iliman Ndiaye day dribble Nicolas Jackson day téye bal nga mën a am côté euh, euh, défense bi nga man a jekku bu baax baax ñi nga xamante ne bii dañoo waa Cameroun léegi bu deuxième bi daal jotee te fekk gars yi bàyyi ngeen Ismaïla Sarr vitesse da yóbbal Habib Diallo dafa gaaw day dóor moom it ah mais te su boobaa ma nga ni Pape Gueye góos bu tàngaloor day dóor waaw su boobaa équipe bi day am beneen fraîcheur boo xam ne c'est exceptionnel Krépin Diatta na ñëw deuxième bi mais ñu ne Kër Max boo xam ne mental moo ko joué ndax doole bi ñoo ko yor te yi ñoo gën a ñàkk na ci pression ndax Kër bu ko dóoree rek ak toogam day jege kon Max la boo xam ne ñun bu ñu teewee Kër day ñëw di ñëw forcé ba mën def lu deful kon daal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre sport am ngeen droit jox seen xalaat ci commentaire bi man équipe ngeen d'accord na war na mën football ak Cameroun ngeen wax ko euh, bu ko defee buñ amee ñun luñ ci wax ñu wax ci bu ci d'accord d'accord ci ndax football man wax toujours rek kenn mënu ko jeexal football dafa yaatu te football daa riche ku ne war nga ñaama jox sa xalaat